Mouhamed El Makhtar Mbaye euh, Cheikh Cissé macha allah yéen ñi ñëpp euh, ñu ngi leen di teewlu bu baax di leen ziar kenn ku si nekk di la jox sa wàccuwaay di leen wax rek euh, partager leen aimer leen loolee mooy suñu doole sans plus tarder maam Biram dañuy daal di rek sóobu ci waxtaan bi mais laata boobu nag maam Biram sa titre benno la victimisation comme ligne de défense. Mm. d'abord pourquoi nga jàpp ne dañuy victimiser wu. Mm. Mm-hmm. merci maam Khady mais dama bëggoon rek un peu balaa ma dugg ci euh, sujet bi. ma def lu ñu mën a tuddee préambule. pour wax un ci li nga xamante ne ni mooy euh, actualité Sénégal. ci yeneen fan yi. nga xam ne tey jii nii waa Mbour ña ngay jooy. noppeeguñu mais au delà de ça. merci <laughs> <laughs> ma ne ko ma ngoog euh, mhm. euh, dinaa si ñëwaat ci kanam sax mais mhm. au delà de ça également. Mhm. nga constaté depuis daanaka près d'une semaine. coow lu bëree bëree bëree bëree biir euh, Sénégal donc jàppal bàyyil kii fii la bokk kii bokkul fële kii gëm na lii kii gëmul la le mhm. mu nekk benn genre euh, euh, euh, débat boo xamante ne nii man daf maa soofa soofa soofa soofa soof ba jàpp naa ne bu la sax bett soo xëyee un jour rek ñu ne la Mame Birame ma nga AES muy Burkina wala Niger mhm. parce que man waxu Sénégal boobu dafa mel ne mhm. commencé nañu maa dominer dafa mel ne commencé nañu maa jekku ñoom foofa ña ngay créer benn groupe de presse bu mag a mag ne dañu bëgg mm-hmm. euh, euh, désinformation bi nga xamante ne nii mu ngi leen di sonal ñu mm-hmm. xool naka lañ ciy trouver une alternative ña mm-hmm. nga may woo nag yaakaar naa ne boo moytul moom dinaa mujj sonn ci waxu Sénégal rek daal di daal di daal di abale dëkk bi xam nga xam nga euh, Sénégal dafa mel ne ñun moom wax dañ koo jël rek baaxoo ko quoi maanaam wax Mm-hmm. yow dëkk boo xamante ne nii puso mënoo koo defar. Kurda mm-hmm. boo ko jotee bitim réew la jóge mm-hmm. maanaam amul benn secteur tey. booy dem ñu ne la fii kat mu ngi dox normalement. du éducation. tey ñi nga xamante ne nii jànguñu Sénégal xamuñu euh, mënuñoo lire français mënuñoo lire arabe maanaam suñu constitution ñi xam li ci ne. ñu néew a néew a néew a néew a néew lañ. éducation bi doxul. santé bi la même chose. tey nga feebar faju au Sénégal ce n'est pas une réalité. nga am zone yoo xamante ni da fay dem ndox amu fa. Euh, euh, euh, transport bi yaa ngi dégg fan yi yëpp dégâts yi ci am nit ñi di dee comme ay weñ. mais au lieu que ñun suñu énergie bi yëpp ñu focaliser ko ci naka la ñuy def pour saafara mais jafe-jafe yooyu nga xamante nii depuis ay dizaine d'années parce que bu ñu nee éducation bi baaxul ne santé bi baaxul ne leneen ak leneen baaxul doo ne day doo a commencé loo xamante ne nii depuis Senghor depuis euh, Abdou Diouf depuis Macky Sall sénégalais yi ñu ngi koy dund mais jusqu'à présent mënuñu cee am solution au lieu que ñun ñu wax ci yooyu nga xamante ni moo ñu gën a yitteel réellement mais ñu nekk fii yow yaa waxoon lii. Mhm. yow gëmoo kii. Mhm. yow yaay wax lële mais ab débat boo xamante nii non seulement c'est super super inutile. Mhm. mais da ciy boole ñi nga ñun ñi nga xamante ne ni dañoo waroon a booloo am yenn objectif comme nu ñu koy waxee ci sunu devise bi un peuple. un but une fois mais ñu nekk un peuple des buts. plusieurs fois ku nekk jàpp sa fois yaakaar ne non mais c'est extraordinaire. moo tax xam nga. Euh, euh, euh, maam Khady. des fois booy suivre ce qui se passe dans ce pays là jàpp naa ne boo amee loo xamante ne nii moom nga bëggal sa bopp di te di ko bañ. jàpp naa ne dangay ngay toog ba benn instant rek nga jël say bagages dem sa yoon quoi. xaaral ma jël sama non mais parce que vraiment. débat yenn yi fi mu niveau yi fi mu wàcc. bërki démb Ndiaye ñu ne ñu ne. Euh, mbuur gaal daanu na foofu ñaata nit ñoo ci ñàkk seen bakkan di jaale fam yëpp mu nekk tiis boo xamante ne nii mhm. euh, euh, jàpp naa ne bu nekkoon ne amoon nañ ay xaar ma yàlla ñii mhm. déggoowuñu ak ñële ci mhm. point bi ñu jàpp ne buñ demee ba nga xamante ne ni tiis bu mel noonu am na au moins kat dina permettre mais sénégalais yi daal di booloo ñuy xool naka la def pour lii nga xamante nii mooy euh, euh, euh, phénomène de l'immigration mhm. mais di faat ay nit depuis des années des années mhm. parce que deux mille vingt et un la xawma deux mille vingt deux mhm. compté nañu fi ay plus de quatre cent morts ba sénégalais yi ci boppam jëloon initiative ne dañuy organiser une journée de deuil national mais nga ne Sénégal suñu jógee ci année boobu ci mbas mi ñekk ci mbënn mi nekk ci euh, euh, euh, nu ñu ko tuddee di sax mbës mi mbas mi mbëkk mi mbës ak mbëkk mi <laughs> mbëkk mi mbas mi mbënd mi ak mbëkk mi